xamante ne moom mooy troisième question bi oustaz kii nag moom dafay laajte mu ne kii àtte te àtte wut ci li nga xamante ne moom mooy dëgg lan mooy àtteem ci kanamu lislaam jërëjëf kii yaa ci laaj bu am solo bi maa ngi koy wax léegi ci biir waxtaan wi mm-hmm. xam nga àttekat muy juge ñetti yoon la ko yàlla tëkku ci alquran mm. te dama jàpp ni yàlla bu demee ba insisté trois fois ci tëkku mhm. la muy wax ñor na ko xoola yàlla dafa wax ak juge yu ne leen wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul kaafiruun mhm. muy benn waxaat répété waat wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul faasixuun waxaat wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul zaalimuun yàlla dafa répété trois fois ci mbiru àttekat juge foofu yàlla juge yi lay waxal yéen juge yi yéen àttekat yi bépp dossier bu ngeen àtte te teg ko ci seen bakkan na ngeen yëg ni bu ëllëgee danaa leen considérer comme yéeféer suñ boroom a ko wax de yàlla nee na képp kuy àtte lu dul dëgg dossier buñ la mën a jox fay la ay milliards nga falsifié ko ba àttewoo dëgg yàlla nee na boo dekkee yowmal xiyaam dama lay considérer comme yéeféer ñu yaakaar ni ci la yàlla yem mu ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika humu zaalimuun sunu borom nee na boo àttee dossier te teg ko ci sa bakkan boo dekkee yowmal xiyaam dama lay considérer comme tooñkat dama lay àtte àtte tooñkat parce que da ngaa tooñ sa population da nga leen a wor ndax àddina da nga leen a wor ndax xaalis da nga laa jënd Sénégal ngay gis boroom xaalis bu la tooñ ni la soo moytuwul dinaa la tëjlu. Ah, jaay la doole. Mm-hmm. nga dem néew doole mu jël avocat fay fay dix millions mbaa cinq millions yow yoro sax deux mille francs yoo ndekkee. mu jaay la doole. léegi nag àttekat bi jël dëgg nëbbu feeñal lu dul dëgg. sunu borom ne ko wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika humul faasiquun yàlla nee na soo àttee lu dul dëgg ngir sa bakkan wala ngir àddina wala yaakaar alal ju ñu lay jox sunu borom nee na soo ñëwee yowmal xiyaam dama lay considérer comme saay-saay alfasiq mooy saay-saay léegi nag yàlla pour pourquoi mu répété ñetti yoon di wax ak juge bu dee sàcckat yàlla benn yoon la wax ak moom bu dee njaalookat yàlla benn yoon la wax ak moom bu dee fenkat yàlla benn yoon la wax ak moom amul benn ñaawteef bu yàlla répété ñetti yoon di tëkku ko koy def lu dul àttekat wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu ulaayika humu zalimun wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayika humul fasiqun wa man lam yaxkum bi ma anzala fa ulaayika humul kafirun kon dossier itam di ko àtte di ko teg ci dëgg mat naa bàyyi xel parce que ñaari façon àtte ñoo am àtte mm-hmm. li yàlla bëgg nga xool sa digganteeg sa boroom àtte lii dëgg même bu neexul nit ñi te boo génnee verdict bi ñuy xëm mm-hmm. bu mu la intéressé àtte li yàlla wax wala nga àtte àtte boo xam ni xam nga ni du dëgg mais amoo fitu wax leneen lii nga sañ a wax ndax boo ko deful am problème nga àtte ko dese nag sa diggante ak sa borom. kon booy àtte àtteel li yàlla wax àtteel dëgg lépp luñ la àtteeloo teg ko ci dëgg. parce que loo àtte nag da nga ko àttewaat. parce que yàlla nee na yowmal xiyaam juge yëpp danaa leen woon ni may juge bu mag bi alaysa allahu bi ahkamil hakimin man yàlla may àttekat bu mag bi mhm. kon lu waay di àtte ci àddina na ko teg ci dëgg te xam ni dëgg moo njëkk moom